Thank you. yi dafa ñaaw dafa am ñoo xam ne dañoo lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw ah man man damaa def ban may sàcc man magum jëm laa duma xale damay ñëw par par yow xanaa sàcc nga yow ah ok damaa gis ñuy sàcc ma jàpp sàcc ma jàpp leen waaw soo waxee waa waaw non dama xamul lu ko laal ah taxaw peut Tapha Gueye mi ngi taxaw ah ñu taxaw ñun ñu taxaw a Balla Gaye taxaw ñuy taxaw mu ñu wax ak ñu ñëw di ko sàcc ah aj ñi gis naa fi ñeen ñoom sax lii dafa ñaaw waay léeru ah. léeru ko yàlla xaar aj ginnaaw bi la nuyoo di la masaw waaw di la jàllin bokk ndax xam nañ tey sa xol neexul tax yaram tàng na tey yan kaddu seede nga may ni sa wéjur wi dem euh, kaddu seede yi daal mooy li mu waroon def def na ko teewal na senegal fu ne raaye bu ne indi na ko senegal raaye bu ne indi na ko senegal soo xoolee lii tey xam ni kilifaa dem ndaanaana dem yàlla na ko yàlla xaare àjjana li mu waroon def yëpp moom def na ko waaw li mu waroon def yëpp def na ko teg na ay doomam ci yoon ñu tànk soo gu mësaa wax ñu ne Double dafa tàng tàngul de da bañ ko ko yab et daf bu nekkoon bañkat yàlla na ko yàlla xaare àjjana moo tax àdduna li ma lay ñaan na rafet na rafet àdduna amul solo na rafet soo xoolee nit ñi soo xoolee ni ñi ni ñuy doxalee nii xam li rek mooy àdduna lii mooy àdduna mbër yëpp a ngi fi lii mbër yëpp a fi ah def lu baax rek am solo. boo amoon kàddu yooyu dolli ñun ñëppay dee waaw. su nekkee ci làmb su nekkee liggéey dañuy liggéey su jeexee nag jeex na seq jàmm ñëpp àdduna amul solo. boo amoon kàddu yoo dolli sa rak Balla Gaye 2 ndax yan bi dal ci kawam diis na. yàlla may ko xolu wuñ yàlla may ko xolu wuñ àdduna nii la demal maa ngi dikk barki dem la Pape Mbaye Gueye dem ana père Balla dem na ana Mor Fadam dem na ah kon nag àdduna amul solo Balla Gaye nekkatul xale magum jëmm la nan ko ñaanal yàlla may ko xolu muñ te mu àggaleeg sagoom waaw ña yàlla musal ko ci cet at làmmeñ nag te journaliste yi nan bàyyi li ñuy def suñu bind nan ko xam lu ñuy def nan ko xam ndax barki démboo njaay barki démb lan taxaw fii di ko wax naan dafa feebar dafa feebar nan ko gaat nga jàmbu waaw xulawuma nan ko gaat nga nan gaat nga jàmbu tey mi ngi nii tey papaam dem na ah nañuy wax jàmm at wax lu leen loo wóor lu waaye di wax na ko nalaw leer lu bind nañu bind lu leen leer àdduna amul solo loof di dafay jeex عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نذير ماحي الكفر أربعا ànd nañ aussi ci àllaaxira ñaanal leen yàlla xaaral aje moom moo ñu dese te di wax ne nag ah suñu jeunesse su pays suñu jeunesse su réew nañu xool ci ñaari jëmm yooyu bi si tey bi sax bi si Double Less kese la nañu xool ci jëmm Double Less kenn mënul compter ñaata médaille doon la Sénégal amul ku ko mën a compter ku a xam da ngay dem ministère nga demandé archive ñu génneel la ko mënu maa taxaw ne jël na bii jël na bii jël na bii moom sax su nekkoon du ko xam ndax mbër dina am dina daan cinq cinquante combat nga laaj ko mel ne 43 laa daan du sax jàpp day bëri di dem rek donc Double Less moomu tey jii Sénégal amel na ko njukkal lu rëy rëy lu mag a mag a mag parce que Double Less dafa nekk mbër sur le plan mais ba pare mu am ay doom xamante ne tey jii dañu teg ndawal ci làmb ji loolu nekkul lu ndaw donc moo tax ma ne monument takk na